mbooloo mi sëriñ bi nee mi ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp nee di wax alhamdulilahi rabbil alamin nee di santaat sëriñ Tuubaa bu baax a baax te mu wamat ñu ci boppam tey sant ci wamat gi mu ñu wamat ci boppam ci jëf ju mel nii nee na bisu lu nekk am na ak kañ ko jagleel nee na Seydina Ibrahim am na bis ku ci nekk ak sa bés Sëriñ tubaa ñu jagleel ko ak cant muy màggal Touba yonent sallallahu alayhi wa sallam ñu jagleel ko gàmm waaye nag sëriñ Tuubaa ñëw jagleel taalibe yi bisug xasida te ñun amuñu lu ëpp xasida te amuñu lu ëpp sëriñ Tuubaa te sëriñ Tuubaa mooy xasida te nii ñu koy màggalale mooy ni mu ko bëggee rek ndax ki mu gën a fonk muy rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam ni mu diglee ñu koy dig dundalalee guddeem taxzimuhu bi sunnati la wax dañ koy màggal màggal goo xam ne dañ koy dëppale ak sunna nee mbooleem dañ cay def boo xoolee sunna dañ ko ciy gis ñun murit nag dañoo xàmmeewut sunna ak farata nee loolu la ñu rawee ñëpp lay ndigal rek lu ñëw rek dañ koy def ni farata moo tax nag ñun xàmmeewuñu sunna ak farata noonee nag suñu borom defee bis bii ñu jagleel muy màggal xasida yi ngir sante ko ko nee na weesuwul taximoho bi sunnati nee na lépp lu ñu ci def ci bés bi rek boo ko xoolee moo sunna ñoo dëppoo kon nag noo nee dong la ko bëggee kon nag nañu xam ne nañu xam ne am nañu tawféex yi ànd na ko ak ñun te loolu rekk mooy suñu njëriñu tey tey mooy suñu njëriñu ëllëg ndax ñetti barab rekk la waxoon ne suñ ko fa xoolee ñu ko gisee ak bu buñ ko gisul ma nga ca barab boobee dafa newoon fu ñuy jàngee xasida alxuraan la njëkk a wax ne fu ñu koy jàngee nee na boo ko fa xoolee boo ko gisoo boo ko gisee boo ko gisul ma nga fa ma nga fa nee na fu ñuy jàngee sama xasida yi itam nee na boo ko xoolee boo fa gisee boo ko fa gisul nee na maa ngi seen biir ba ka ñettee dafa wax ne fu ñuy waxtaanee samay mbir boo ko gisee boo ko gisul ma nga fa ma nga fa nee na maa ngi seen biir kon nag loolu dong doy na tawféex nee na kon nag li ci am solo rek mooy nangu ak gërëm te sëñ Tuubaa rek lañ ko yaakaare waaye rek ci moom rek lañ ko soxlaa itam kon nag yàlla na nangu yàlla na gërëm bis bi bis bi yàlla nañ ko yàgg jëf te yàgg koo fekkee te yàgg koo ànd ak yéen noonee suñu maxtaar leeralee ko rek nee na noonu rek la demee saa su nekk rek bu ñu sañoon dañuy am kàttan nag ñëw ànd kook yéen ngir barkeeloo ko kon nag jërë ngeen jëfati nee na mi ngi sant ñëpp mi ngi gërëm ñëpp di ñaan képp ku fi teew rek yàlla na sëñ tubaa faj ay aajoom ay gàllankooram yàlla na ko sëñ tubaa dindi ba aljana rek kon nag jërë ngeen jëfati asalaamaaleykum wa rahmatullah kon na ñëpp taalal